waaw jërëjëf Pa Diagne jaama rek la parce que boo gisee kilifa mu yóbbu walla fas ene dara def ko dara def ko bére nar a jógaat ñëwaat yàlla jàppale ko num ko xaymee woon yàlla jàppale ko ba loolu pare li war mu ñëw ubbi ko jébal ko nit ñi ñi ngi moom mu nekk fa soo dafa mel ni trip bii nii trip boobu la dafa am promesses yu mu defoon dafa am développement yi nga xam ne yooyu la ma woon fii nii yàlla def na si yooyu am na ñu si jot a pare so mu ñëw pour jébale ko askan bi ñu commencé ah, di ko yuus loolu moo waral mu ñëw fii nii far tam ah, yeneen itam bokk si lu mel ni laka-laka marché bi xam nga loolu kenn du ko wàcc loolu tam ñëw am nekk naxari lool si moom noo si Gambian si tam noo foofu tam mu continuer pour su ko defee rek maa ne noonu mu mun a gis ah, mun a gisante ak ñi nga xam ne ñoom la seen alal des foon fa ak tam ah, yaaxu-yaaxu bi su ko defee moom it kenn du ko ko nettalil waaye mu mun na koo gisal boppam boo tax waaw parce que Massi road bi bokk na si bu moo dem pour ubbi Lamin Koto Passamasi loolu moom dana ko ubbi te dina nekk occasion bu rëy because area boobu noon lu ñu sentuwutoon yàlla def na loolu la am si juróom fukki at ak ñaar yàlla def na finally moom si ñetti atam ñu am ko so loolu dinañ ko ubbi um, saturday non saturday boobu noonu bu passé tam danañ dem ubbi ji collège bi tam danañ ubbi ji collège bi tam mooy Gambia collège seen beneen complexe bi nga xam ne moom moo nekk base mooy Basse collège bi boobu tam dina dem pour ubbi ko euh, dina dem Bansan tam dana dem ubbi foofu noonu tam ba des hydraulique lëfin bi nga xam ne daal ñoom ñoo amee wàllu jaww ji pour xam no jaww ji nu mel boobu tam dina ko dem ubbi ji ñetti yëf yi daal boobu dina ñëw si ñëwam bii nii dina leen ubbi. jërëjëf Pa Diagne loolu lu am solo la li nga jotal a laajte fii nii fuñ toll nii njëriñ bi nga fa nekk mooy benn dafa wàññi migration bi nit ñi amaan ñi nga xam ne ñoo dee jógee ko suufi base. ba suufi Fuladu dem noon ba jaara loolu ñu bari mun nañoo jublu fii nii instead of ñu dem Kombo because lu ñoo uti Kombo loolu moo am fii nii so da gis ne mun na jànga fii nii ba wàcca fii ku si yàlla jàppale tam ba am fi liggéey bu la neexee doo àgga Kombo soo lu mel noon ba faa wàññi migration bi because am fu ñu toll nii boo demee nga seet Kombo ñëppaa ngay jublu Kombo te du Kombo rek moo nekk Gambia wala du Kombo rek non moo place bi nga xam ne moo war a am yu mel nii gis nga comme Gambia collège collège bi nu mu amee Bansang di seemtin lu mel noon waxuma collège bi si boppam waaye lu mel noonu war naa mun a am jaara sooma war naa mun a am Bansang war naa mun a am fara Farafenni war naa mun a am bépp major town su ko defee da ngaa gis ne maa ne noo jóg bu nit ñi di jóg di dem fu sori loolu bu nekkee sa saay du jë sari waaye loolu yëpp développement moo ko dee indi comme par exemple dañ gis fii ni jaama ah, collège bi njëriñ bu fa nekk dafa bari kenn mënu koo konté because foo seetoo wattu bii ni foofu fees na students yi feesal nañ foofu ñu ngi xaar pour président bi ñëw mu ubbi ko ñoom ñu commencé lu ñëw commencé da ngaa gis ne fii dina am yeneen facilité yoo xam ne daal komba du ko am waaye keneen koo xam ne soxla na yu mel noonu te bëgg naa def course yooyu noonu mun naa jóg komba ñëw def course boobu noonu fii loolu yëpp euh, loolu yëpp mun naa am loolu yëpp mun naa am moo tax ma ne la njëriñ bu fa nekk defa bari trop lu fa nekk bi ñu ngee ñaan rek nuñ ko commencé nii ñu yóbbu ko si jaama jeexal ko si jaama ah, te ba pare doomi Gambie yëpp mun a faa bénéfice luñ fa sentu woon yàlla jox leen loolu waaw waaw lu gën a am solo mooy school bi na ubbi problème moom fan na maa ñëw nañ si àdduna moom du mus di jeex waaye nag ubbite bi am ko loolu moo gën a am solo soo ko amee dëkk fa bés bu nekk da ngaa gis lu ees te lu ees boobu noonu li ngay gis ndi nga fa nekkee mooy tax nga amal ko pexe soo li gën a am solo mooy school bi ñu ngi koo dem ubbi te xam naa school bi fuñ tollu nii am na facilité yu bari because muy restaurant si boppam am na ki fa war a dem operate standard restaurant bi nga xam ne boo ñëwee mankamam fii nii sax te nga bugg a façon yeneen lekka yoo xam ne moom nga admea mun ngaa dem ba si restaurant bi foofu noonu nga ooda ko loolu tam mun fa te dina fa am facilité yu bëri noo dinañ sampa foofu noonu ay bitique yi tam ñi nga xam ne daal noo diggante bi ma lépp loo soxla rek danga ngaa mun a am maan easy access pour nga jot yooyu noonu loolu yëpp dana fa nekka xanaa ku bañ a jàng waaye facility bi taxoon yow nga mun a am sa xam-xam wax dëgg yàlla facility yooyu noonu yëpp dinañ fa nekk because demoon naa foofu noon raawoon naa foofu noonu gis naa fa lu bari laboratoire bari nañ yoo xam ne non lu ñu amutoon la. waaye fu mu toll nii yooyu am nañ ci lu doy te bu soobee yàlla bu gaay yi nangoo li tax ñu ñëw foofu noonu mooy jànga bi ut xam-xam buñ ko nangoo seen njëriñ rek moo fa nekk nit nga mun nga koo ubbil bunt waaye mënuloo ko forcer si jëmam lu mu war a def munoo ko fulla jeeg fayda ji loolu moo war a des si loxo students yi léegi comme ni ko olof Njaay waxee ñetti yëfan si yëfi bu la benn rawee nga jàpp si benn bi waaye ñette yi waruñ laa raw bu la ñette rawee rek nga xam ne sa dundin bi jafe-jafe rek mooy nekk sa kanam mooy lan fulla ji fayda ji ak jom bu la jom rawee nga jàpp si fulla ji bu la fulla rawee nga jàpp si fayda ji waaye bul nangu ñette yëpp raw la so loolu moo gën a am solo bu dee gars yi ñëw nañ foofu noonu li tax ñu ñëw mooy jànga nañ concentré seen jànga bi jànga bu ñëw def loolu tam dénkaane la ñoom ñoo ko moom yàlla ñoom lañ koo jox bi ko ñoom ñoo ko dem uti waaye dénkaane réew mi la pour suba nu ñu war a yóbbee Gambia kon donc suñ ko def rek nañ ko def si ful ak fayda bi ko xam-xam mooy yóbbu réew ñi amut xam-xam tam dañu am seen own rôle ñooñu tam lu ñooy play combination boobu noonu moom moo dee yóbbu réew waaye ñoom seen wàlla dafa am solo lool ñii ñëw pour jànga lii laa leen naa aida pour wax leen ne président Adama Barrow bi nga xam ne moom mooy yërëmande baro bi nga xam ne daal lépp loo xam ne moo war Gambian si su ko déggee dina taxaw pour gis ne luñ doon joytu mu indil leen ko def na waru galam si wàllu éducation léegi lu des mooy ñi faa dugga pour uti xam-xam si ñoom la des keneen ku fa féel bul joxoñ président Adama Barrow Adama Barrow lu war a def def na la leen côté boobu noonu te boobu leen gis lu bari mu ngee des fan na maa ñu ngee dem jàmm baa ngee wàcc incha allah dafa dafa mel ni sanca bu es mënuloo am lépp at once sanca bu es déedéet loolu dina jafe waaye xam naa ne daal nañ doolee muñ ñu continuer di muñ ñoom suñ toll nii su ñëw soo ñëwee si school bi nga ne ñan ñoo commencé school bi ñoom mun na ñoo taxaw ne ñoom ñooy papi school bi ñooy nijaay school bi ñooy mbangi school bi because ñoom ñoo ko ubbi leneen lu manqué foofu noonu ñoom ak community bi ak nguur gi ñoo waroon na boolee together liggéey loolu noonu pour ñoom buñ fa jógee ko ñeneen war a ñëw fekk facilité bi kenn na du jooyati liggéey bu ñu war moo leen war ñoom student yi ñoom it nañ bokka loxo lu ñu moom bul des gannaaw suñ koo ekkati ñëwal yow sa doole fu mu em def ko si lii laa gom buñ ko defee rek collège bi dina dem nu mu waree te ba pare ñoom buñ fa jógee ko ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen waroon na toppa ñoo ñooñu tam nañ fekka beneen njëriñ bi nga xam ne ñoom ñoo ko fa def bari na ay schools yu bari fii nii ñi ko startoon maa ne noo ama primary one up to primary six dañ doon sensitise teachers yi dañ doon use students yi ñu ji ay garab yi mangoro yi ak yeneen ak yooyu noonu ñu bari si ñooñu noonu wàcce nañ ñu ngi liggéey te laatuñ yooyu noonu waaye seen xale yi ba seen doom yi di ñëw ñoom ñoo fekk mango yooyu noonu bu ñu wàccee break dañ fekk mango yooyu ñor nañ dañ ko dee aji lekka so ñoom tam nañ def lu mel noonu suñ defee lu mel noonu rek incha allah ñeneen ñi di ñëw pan si gannaaw Jam rek la ñoo fekk fofu non ta duñ soona waaw jërëjëf am loolu lu am solo la bridge boobu noonu taxawal nga xaar maa ngi ñëw ak fu taxaw xaar fu xaar nekkut foog naa fu xaar nekkut moo gën a gaaw bridge bi communication la te communication mooy yóbbu aduna diggante bu nga taxaw fale na la yaa ngi xaar feri bi niw nga am wala lekka nga am wala leneen nga am foofu li nga waroon a yóbbu pour dem jaay ko diggante bi bu dee ferry bi am na problème te mënu koo yóbbu problème la waaye da ngaa gis ne bridge bi dafa jeexal loolu dafa mel ni nga ñëw muy dugg si base yaa ngi continuer di dugg a wulli te yëguloo ne sax yaa ngi dugg a wulli bridge bi lu moo dugal ah, njëriñ bu moo def kenn mënu koo compter yàlla rek a xam comme nu ma la ko waxee rek aduna communication la communication bi jokkalante bi moo ne bu demee mu am nu mu war a amee rek amul dara loo xam ne dina wees so lool moo tax bridge boobu noon mu am solo te gars yi wulli itam dañ yaaga soona wulli sandu yaaga na ñoo soona fifty two years bi nga xam ne si loolu lañ nekka dundin bi nga xam ne moom lañ doon dundee dunda bi naxari na lool waaye ñu ne ko muñ bés yàlla fekk la dañ muñ na fuñ toll ni seen wattu moo jot lii moo taxoon yàlla indi leen président bi nga xam ne bu moo ñëw kaadu bu moo campagne pa bés bu président Barrow bu ñu aagoon basee ñu war a dem wulli bes boobu dama tiit fekk géej bi fees na feer na duga na ba si bitiki moto du romba moto du jaala te war naa mun a dem mu dem campagne wulli bes laa laa nettalil fii de du ñëpp la ko mun a nettalil tam ñu aaga moto yëpp dañ leen paak président baro si gaal bu ndaw lañ ko dugal because jamono joobu noonu jamono Yaya Jammeh la military board bi moo mënut a aaga pour prioritize opposition ñemewu ko gaal bu ndaw lañ ko dugal ñu dugal moom ñu jaala di dugas yeneen gannaawi néegi di utali wulli gële-gële lañ fa luwaas pour li ko war a yóbbu pour mu dem def too bi because moto du jaala so gële-gële boobu lañ dugoon si guddi boobu noonu ñun balaa ñu doon aaga fu ñoo gële bi ak yoon bi ne ñun dañoo dem ba aaga foofu noonu accident amut yàlla rek moo moom bàkkanam waaye keroog dama tiit waaye xam nga rek lu soosee di wax duntung membe kooko lii la sonting bu koo ma ganaar bi nga xam ne daal dafa war a saapi du gisante muus bu koo téye so loolu yëpp am na moom si boppam si la leen jox laahit bi ne promise ne leen su ma yàlla defee nguur ma nekk président yéenaay force lépp loo xam ne yàlla may na ma pour liggéey réew mi fii laa koy commencé dem te moom tam feelut baatam bu ñëwee tam lu ko yàlla may fii la ko commencé mu jublu kombo kon donc président baro def ko commencé fu sori waaye wulli sandu soonoon nañ loolu si nawek ñu bari jigéen yu bari seen bakkan yi des nañ si àll bi jigéen bu biir amoo dara sa dëkk bi amul moto yoon bi moto yi duñ ko mëna daw taw ba nga taw nga dara am dom do xam fay dem tek la si sareet pour jubali la fu lopitaan neka ñu bari sen bakani dess nañ fa xalé yu bari sen bakani dess nañ fa so lolu tax na tey ni mun na laa wax ne lu mel non president baro li bokana na si garab bi bi tax bakani war na ñew pour contribute to nation building moom it contribute na pour rëccale bakkan yooyu noonu mooy tali yum jagal foofu noonu ak bridge bu moo jagal ni waaw xam nga yoon boobu noonu comme ba léegi lu ma la wax rek si communication bi yoon boobu jàmm rek la moo indi because the same yoon boobu noonu comme nu ma la waxee bu wulli bi the same thing moo xappaloon yoon boobu waaye comme président Barrow bu mu jóge woon ut réew mi man maa nekkoon si kanam maay sweeper bi kon leneen loo xam ne naxari na walla neex na may force ki nga xam ne may àgga si moom am da gis ne jamono boobu noonu si campagne bi naxari woon na lool Pa diggante diggante na ak base yoon boobu moom mar la dee taan dañ tombe woon benn taw boo xam ne ndox baa ngi foofu noonu fu nekka doo doo xam fan mooy fan mooy yoon bi fan doode ham fan mooy yoon bi waaye si diggante boobu noonu lu si munta neeka da ñëw ñëw gis loo xam ne ngandam ponkali pax man maa fa duggoon ak moto bi dama foogo ne moto bi dina fa des waaye yàllaa ma dimbale yàllaa ma jàppale si loolu noonu bele loolu yëpp munuta am man bu ma demee ba soobu si loolu noonu ba ma génn boobu laa leen alaat na buñ jaar fii yoon boobu dafa garaawoon munoon ngaa am complete one hour thirty minutes to two hours yow balaa nga àgga koy na fuñ toll ni loolu mënut laa jël fifteen minutes twenty minutes fekk dugga nga toppatoo nga li nga war a toppatoo del suwaati ñëw loolu tam yoon bu am solo la te yoon la yoon boo xam ne Sénégal dina ko jaaree am easy access pour dugg Gambia bi Bissau dina ko jaare am easy access pour dugg Gambia ya di same so da ngaa gis ne jokkoo bi ak jotalante bi yoon boobu noon contribute na a lot in term of commerce da ngaa ñu bari fuñ tollu ne duñ daan mënoon na indi marchandise ngir yoon bi nu mel bi ko duñ dee mën a nangoo borom moto yi duñ dee nangoo ñëw side bi waaye fuñ tollu nii moto yu bari yoon bi su paré dinañ commencé joggé ko Bissau Sénégal Mauritania ñi yépp basé koyna bobu lañu transit pour dugga si Gambia so yon bu am solo la waaw am comme numa la war rek bena bi la fuñ tolu nii mën nga joggé ko bañul budé bugulo wa basé gis la mun ngaa jógee koo Banjul jàll ferry bi duga foofu noonu continuer dem direct ba Fatoto continuer noonu dem senegal wala Bissau wala Mauritania fekk laaluloo Basse so looloo tax boobu noonu dafa am solo bu dee tam danga am yeneen aajo yoo xam ne mu ngi booree Kantora mun ngaa jaaree yoon boobu noonu straight crossé ko noonu rek ñëw Kantora fekk jaaruloo Basse lii yëpp communication bi dafa war a bari gis nga léegi dafa wone ne nit mun naa aaga koy na wala aaga fatooto fekk jaaruloo base kooko waxoon booba na la ne du dëgg base rek mooy main entrance bi waaye fu ñu ni yàlla ñëw na bu mu ñu joxee président Adama baro am na ñaari bunta fuñ toll nii nara aaga koy na te fekk doo jaar base mun nga jaar ta nga demee koyna walla nga jaaree base dem ko dem ba fatooto te fekata maani noo jaaruloo south bank so lii definitely development la te lu mel ni ñu ngee ñaan yàlla yàlla bariloo ko si gambia fii bu mu em suufi base rek waaye di whole gambia because fuñ toolu ni boo demee nga dem seet kmc bu ni ñuy wàccee keroo ñu ngee toog boo gisee président Adama Barrow si boppam mu ne tukkiyam yi daf dee bugg a mu fool wattu bi nga xam ne nit ñi nekkuñ di liggéey xam nga li tax mu wax loolu mu ne yoon yi dañ xat bu jógee ko State House nara dem maan ñu jàppa yoon bi nit ñi dañ dee soona mu ne daf ko dee fiil daf ko dee yëg looloo tax mu mujjee wax gars moom nañ buñ tej bunta uh, si yoon yi nañ bàyyi ba mu jóg ñu soog a commencé stop nit ñi because duration bu moo jël duration boobu noonu nun nit ñi di sofa def ko dee fiil loolu yëpp ñàkk a yoon moo ko waral lii moo tax mu ngi amee plan bu es pour lum pareel suufi kombo ak KMC major highway yi suñ ko naree am rek nga xam ne trafic bi dina yomba bu trafic bi yombee rek time bi bu weesul rek income bi dina dung so loolu tam dafa am solo trop buñ fi jógee ko dana dem Sukuta Jaabang highway bi tam dana dem pour ubbi boobu tam te xam naa ne bu jógee ko si boobu tamit fuñ toll nii xanaa mu jógate léyaate beneen foundation stone nii because ñu ngi expect more than twenty major roads yi nga xam ne daal in combos yoo xam ne mu ngi war a ñëw under OIC loolu tam mu ngi war a commencé du yàgga noon loolu mooy yoon yi jógee ko yundum dem ba Sénégambia noonu loolu dafa war a nekk different lanes nga xam ne trafic bi loolu tam dina wàññeeku te yoon bu war a jógee ko diggante Bruce bi ak Wulinkamma seen diggante bi boobu tan dafa am highway duganoon Brufut ba Haydarakunda Brufut Gamtel tam boobu tan yoon boobu tan dafa war a continuer ba moo connect ak yoon bi beneen yoon bi tam continuer dem so lu bari mu si yoon bi loo xam ne xam nga pa pa leena moo gën a am solo wax dafa am solo mooy wax bi nga xam ne da nga siy jàngee pour nga jëf ko wax yooyu am na solo waaye wax boo xam ne yow dangay xoor rek lu la neex rek nga ne per loolu foog naa kacca kacca si banta bi ba sax dafa am wattu bi nga xam ne juree bu buñ dee noppaliku waaye jëf moom la Gambian si moom lañ ko sas pour muy jëf te yàlla mi nga xam ne dara texu ko président Adama Barrow mu ngee jëf te bu ko jëfee ni ñi gis ko loolu moo gën a am solo moo gën wax balaa wattu bi di jot dinañ gis lan ak lan ak lan ak lan la président Adama Barrow def su boobaa dina leer ku nekk ku nekk dina xam si juróomi at bii nii dina la ko yëgal si juróomi at bii nii nga deng da dem nga access lu mooy liggéey si yoon si juróomi at bi lu mooy liggéey si yoon number of kilomètre bi ak président Jawara diggante bu mu fi nekkee si thirty years lu mu liggéey si yoon nga xayma ko in fifty years nga ma ko président Adama baro lu mooy liggéey si five years am bii nga xayma ko da ngaa fekk ne three quarter bi ñoom li ñu liggéey si fifty years kii liggéey ne ko si five years bii nii three quarter bi yépp dana ko liggéey si five five years bi lii moo gën a am solo lii lañ nekk di utal du ne dama mun a wax nga jóg nga dal si nit ñi di leen wax di leen saaga di leen xaste loolu munu koo yóbbu lu ma bëgg a aida gambian si na gambian si xam ne gambian si ñoo moom gambia gambia belongs to gambians and will always remain in the hands of the Gambians. They are the rightful owner of Gambia. Let's join hands together and see our nation and do anything possible to develop this nation for future leaders that are on the way coming. Lolo moo gën am solo ñu bàyyi ne xet bii moo gën xet bale benn xet gënul sa morom ko si kenn gënut leen ñëw si saraxulle kenn gënut leen ñëw si soose kenn gënut leen ñëw si séeréer kenn gënut leen ñëw si aku kenn gënut leen baynunka kenn gënut leen lu gën a am solo olof yoo pël yoo ñun yëpp ay Gambian lañ benn national identity card boobu lañ laa jox te boobu duñ la dee laaj ban nationalité nga wala ban xeet nga boo nekkee Gambian lañ laa jox kon dañ demoo ñun wii are Gambian moom moo gën ko wax rek maanaam mu ndamoo ne man Pël la walla man Soose la walla man Olof la walla man Séeréer la loolu amut solo li gën a am solo nga nekk Gambian because doom réew mi dañ ko héritage te ñun tam danañ ko bàyyi am na ñeneen ñuy ñëw Barasa Dawda Kairaba Jawara di wàcce si réew mi fii nii di colonial masters ñoo fi nekkoon how many hundred years ñu ngi fi seen wattu bi bu mu jeexoon ñoom saafaraman singaat yëpp mos nañ Gambia ana leen dem nañ bàyyi nañ fi Gambia saa Dawda Kairaba Jawara ñëw na def na waalam si biir Gambia thirty years ana moo dem na bàyyi na fi Gambia Yaya Jammeh ñëw na def na bàyyi na benn waalam twenty two si biir Gambia fii nii anamoo dem na bàyyi na fi Gambia Gambia mu ngee dox ba léegi président Adama baro ñëw na dugasi na nu mu yaaga yaaga président Adama Barrow tam dina bàyyi Gambia waaye lu mu fas eenee mooy suy bàyyi Gambia mu bàyyi ko si jàmma delloo réew mi si jàmma jox ko Gambian si fu mu em keneen tàmbale ko foofu noonu yóbbu réew mi moo gën ŋuuyoo ŋaayoo boo noonu bakku bakku yooyu noonu yëpp mbor lañ ko xamee président baro liggéeyal xam du mbor nekkut Eumeu Sène nekkut Balla Gaye te nekkut Mor Lo talut pour bakku waaye dafa tal pour liggéey ñëpp gis ko so lii moo gën a am solo fii laay waxaa suma kaddu bi ba beneen jamono boo xam ne daal buñ dajee waate su boobaa leneen lu falasi rek wax dëgg yàlla metti na lool ku la waxut ne méttiwut nga xam ne kooku amul deret si yaramam muy góor ak jigéen ñi am ñi ñàkk fu ñoo daanee seen doole sutural loo seen boppa lu ñuy yaakaar teg ko fa bu ko safara jëlee benn bés dafa metti si doomi aadama waaye metti boobu noonu yëpp lu ñuy dawalante muy alal ji muy loolu yoon yëpp lépp luñ fa mun a am nga xam ne loolu yëpp tam si ndogal yàlla moo taxoon ñu am ko dama bëgg ñu deloo suñ xel si yàlla ñu xam ne mboota mboot ak lu mun a lekka be biiram bi fiis bu ko ndobin feesee fekkee nga xam ne loolu yëpp maa ne wërsëki ndobin bi la kon doog ñun luñ jot a am foofu noonu ba ñu ñaaka ko tey ak ñoom seen boppa yàlla ko moom te yàlla dogal lii nañ ko téye rek in good faith te ñu xam ne yàlla mi nga xam ne moo dogaloon lii nii mun na am tam ne yal na ko yalla def lii old stock la dafa am lu es lu mu leen jagalal lu gën a rëy passé lii yal na ko yàlla defal leen yàlla man na ko yalla leen yàlla defal président Adama Barrow demam bu mu dem foofu noonu tey nii am na solo lool. because bara président bi di àgga foofu noonu dañ diga dégga ne yeneen opposition yi dem nañ foofu am na yeneen opposition yoo xam ne daal man musuma leen a fekka fu jàmma nekka duñ fa njëkka waaye fu ay nekka ñoom xaw ma ndax dañ dee communicate ak iblis ñoom rek a xam fu ay nekka ñoom ñooy foos kuy taxaw si boobu noonu dégg nañ diw demonstrate nañ dis des gaañu na foofu def nañ foofu ñooy foos di taxaw foofu waaye fu jàmm nekka duñ njëkka kenn foofu waaye lu mel nii wax dëgg yàlla danaa leen wax ne seen ñëw bii nii ak yeneen ay yu ma wax dafa uteeg bii nii pour suñoo wax suma kaddu bi nañ xam nuñ ko waxee ma faram-fàcceel leen bii moom contribution bu ñu def appréciate naa ko man Mama Kandeh contribution bu mu def appréciate naa ko Ousseynou Dabo contribution bu mu def appréciate naa ko waaye seen nit ñi si gannaaw ñooñu kaddu yu ñoo bàyyi kaddu yi dañ dee gannaaw trop dañ dee ñaaw président bi demut foofu noonu ne président bi two hundred and fifty thousand la joxe ñoom si loo wax si seen forum mi yow mi sa boppa déggoon nga ko si forum mi ñu ne président bi demoon na foofu noonu joxe na fifty two hundred and fifty thousand Ousseynou Dabo ñëw na rek joxe na four hundred thousand ñoom ñu ngi reyloo four hundred what is four hundred ah tey nii la président aga foofu noonu moom jëmmi boppam waxul nguur gi moom jëmmi boppam lu mu jot a contribute nu mu fa aagee gis si la contribute lu mooy contribute yéen a xam fiigoo bi de man xawma fiigoo bi ñaata la contribute na two million yaa ko wax de man waxaanguma de man fa waaye ñëwaanguma si loolu toogaanguma si loolu noonu maa ngi soog a ñëw nii waaye nañ ñu bari tam ñu ne 2 million kon nañ jàpp ne 2 million la. 2 million boo xam kaas an million boo xam ne kaas la leen jox. looloo ta looloo ta moo leen a lii moo leen a woon ne na gars yi waa ñu wax jëf moo gën a am solo dama laa wax benn léebaatu almuudu bu jóg am potam bugg a dem ñaane ji gerte si ki nga ko ñaane ji si béykat yi noo mun a am am gerte wala noo bugg a bugg gerte ki la béyal gerte bi ku la béyal gerte bi moo la gën a bugg gerte so dafa am yeneen ñu ngi doon yuuxu di bakku waaye foog naa ne bakku bi léegi xam nañ président stanam fan la toolu nañ bàyyi loolu ñu seet lu baax si réew mi ñu def ko base marché bi de am area council ki fa nekk di Fodé danaa ko sas te man ko sas si kanami caméra bi woon ko ne mu ne moom opposition la opposition candidate la bi amee base Fodé Danjo yàlla def na marché bi laka-laka bi am na te area council alal bu nit ñi di fay yëpp foofu la mooy uyu na merçonné marché bi lu leen war na ko def na ko def defal nit ñi nguur dana ko monitoo seet waaye nguur du fa sori du fa sori si kaw lii ne ñoom nangu ñoo nekk gannaaw nguur ñu ne ñoom opposition lañ nguur di interfere bi ko dina am bés dinañ ko accountable waa Basse suufi base de danañ ko accountable looloo tax nguur du gaaw a interfere lu nguur di interfere tam dana bëgg a maa ñëpp am ko witness ko area boobu noonu na fexe by all means mu gis ne Basse lu war foofu noon mu am man loolu laa ko sas waa Basse julay jula yi soxla nañ bitik bu tànga fuñ toll ni lu leen yàlla jox ñu commencé ko foofu noonu ñaanaati yàlla ndax mu wàcce leen xewal waaye area council buñ ko def politique rek because politique bi fuñ toll nii place bu ñoo politique yëpp yàlla joxe na ko président Adama Barrow te du simee ko mbuba boobu noonu ten years mbuba bi ten years dañ ko ñaw dafa àndaa deram nañ noppaliku côté boobu noonu nañ concentré si liggéey bi moo gën yaaxu am na doo concentré si liggéey bi nga commencé ne place ngay ut ba lo wara liggey do ko liggey nako worne lolou bu amé bi moy nek sen mujjanteel bi benen buy ñëw danañ farandu kenen duga jërëjëf waaw pa lolou moy wax bo xamna dal wax ku maccoot ku maccoot non ngay waxe because neex na la naxari na la moy sa president ten kenen ko xamne ne nga ko bugguloo ko sa president fan na maa yaa ngi si biir Gambia fii lépp lu xew mooy kilifaam bi bu àggee foofu noonu kaddu yooyu lañ sentu ne loolu la war a wax ñi koy politique yëpp moom mooy seen kilifa ku mu neex na xari moom defu ko yow defoo ko man defuma ko yàllaa ko def kon donc su ne kenn ku nekk loo mun na contribute nga contribute ko waaye buñ ko politique li ko war loolu la wax noonu te lu mu wax noonu loolu moo gën a am solo man amul na am na ku ma kool danaa ko wax am na ki ma kool mu ne ma yéen a toog yeneen a ngee gis terroriste laal nañ fale na le taal nañ foofu noonu ma ne ko bu ma ko waxati bu jógee ko tey kan mooy terroriste kan moo ko def mënuloo maa joxoñ nit mënuloo téye loxo nit kon waruloo maa kool di wax ne diw bi ko opposition lañ jubóo maa kale jubóo maa kale wala three years la ma ne ko bu ma koolati nga wax ma lu mel noonu su la demee ba mu xam ne yëf yi leer na la diw la téye loxoom nga indi ko gambian nga gambian la keneen gambian la luñ la ka alali gambian lañ suñ alal la téye ko nga report ko waaye bu ko politicalise loolu laa tontu woon waa jooju noonu the same thing moom la président waxoon because ñi nga xam ne lakk la nañ fii nii ñun gisuñ ne kii moo doon support président kale supportul président wala kale mooy support GDC wala kale mooy support UDP wala kale mooy support NRP ñun dañ ne marché basse moom moo lakka because am na ku support GDC te mu ngi si marché bi foofu noonu waaye UDP bu ñëwee si kantingam la day jëndee lu mu soxla yóbbu ko duñ dee politique foofu am na koo xam ne lakkale na foofu noonu am na fa bitig mu ngi full time président Barrow waaye UDP de ñëw foofu noonu gars yi UDP ñëw foofu noonu du de créétal ko income jënd foofu noon te duñ dee wax politique kon donc alal bu dem alal ñëpp la alal ñëpp la bu ko kenn tiyee di ko politicalize di dem ñuy tuumalante di ko iir nit ñi bu dee nit ñi de ñu ñaan foofu noon ñi nga xam ne ñoom ñu ngi seet ñu ngi def seen fact finding bi ñu ngi def seen investigation bi seet lan mooy di cause of it ñooñu buñ paree luy dëgga bi danañ ko génne waaye ñun ñu des nañ ñaanalante te ñu yërëmante bu ñoo mun a yokkante ñu yokkante waaye buñ tuumalante si loo xam ne óorut la politique neex na waaye mun nañoo yóbbu politique tam ak ragal yàlla politique ak ragal yàlla dina la njëriñ lool waaye politique boo xam ne da nga ne bàyyi ma gis downfall diw rek ma teg ko ko rek yàlla du la ko may da ngay xeex yàlla nga yaaxa sa aduna yaaxa al'axira te si diggante soo si amul njëriñ amalu la benn njëriñ li gën a am solo mooy suñoo politique nañ ko teg tàmmaan si taam ak digga bul tuuma koo xam ne deful la dara jaru ko jaru ko soo pas lii lay edda nit ñi comme président bi nu ko dee waxee rek mu ne suñ ne nañ mbooloo ñu dem ekkati étage bale mu ne tooy ku ñorut wérut moom moo dee teel a jóg mu wax lañ ne maa ne abal leen ma sagar bu maa def tiñe mu ne jaru ko dañ ne mbooloo mi yow kay demal rek a mbooloo mi ba ngeen àgga foofu noon nu étage bi ni ngeen ko enoo foofu la moo leer waaye jarul yow nga laajte man tenja bu nga xam ne moom ngay jëlaangum pour ne boobu nga koy enu da ngay gaañ sa boppa nañ def ndànka mbiru réew la nañ bëgg a suñ réew nañ bëgg a réew amuñ feneen fu dun fii fépp fuñ dem dañoo tumaranke fépp fuñ mën a dem dañoo nekk tumaranke waaye fii dañoo ndamoo suñ boppa fii nu moo baax loo boobu wargal ñëpp la nañ contribuer fii laa am yow nuyu leen sant leen ba benn jamono incha allah jërëjëf